mën na jàng ne seen deuxième temps muy gée ak timis unsu bi ma nga askano ilaa tuloo i saadiqil fajri ba ca fenk ak fajar kon lu yàgg la wàcceel na nga def muxtaaran muxtaar li suppi ñeel julleeg suba nag minhu foofee la tàmbalee moom ilaa isfaarin ahla ba ca set fajar gë gën a kowe ba mu leer nañ ba koo seen xàmmee ko daa xisam daa ñuul nga xam ko ban xeetu yére la sol nga xàmmee lool loolu yépp moxtaaram julli suba la xat jalaa ba feeñal nañ li lu jooy ñeel xar kanam ya ko seen xam ne kee di wa ba mu leere noonu ba nga mën cee xàmmee noonu teewut yi lépp yaa ngi ci moxtaaram julli suba wa mabdaahu doroor yi tàmbaleeb dolorier muy tàmbaleeb deuxième temps temps julli suba nag minu foofee la tàmbalee ca leer leer booba di dem di dem ilaatuloohi xursi samsi ba ca catal fenkal jant ba waahi bilxilaa jantab ka nga xam ne mooy maye xeewal yi di sunu borom ba ngay seen catal jant lay fenk loolu yëpp mooy deuxième temps julli suba kon tamit lu yaatu la su mal xaddaaw topp nag fay boru julli fil jamihi ci mboolem xeeti waxtu yooyu ñu la joxoñ yantami ma ngay askanoo nag nga yeexa ko li ba di sil aw xaati boromb ginnaaw waxtu yi ñu la joxoñ nag indal xakami ci ñay waroom ak xereñ ci xam-xamu feq kon loofi julli ci waxtu yooyu ci diggante yi ñu la joxoñ julli nga ko ci waxtoom boo ko yéexee nag ba waxtu wa ñu la joxañ passé la nga def boo julee julli nga waaye fay bor julli la tudd ca waxtu woo woowee ñu la joxoñoon kon kuy fay bor mooy ka yéex yéex a julli waxtu wa ba fi la joxoñ passé kooku nag moom la ñuy waxal fii wan mi na nga askanale asima zan bi ba kër bu rëy lil mu waqari ca ka nga xam ne dafay yéexe julli ata tafootuhoo ba mu raw ko waxtu yooyu ñu joxoñ bilaa onsrin tamul ngant du rëy ngant lu ñëpp xam kooku am na bàkkaar bu rëy wa baax du suppin ginnaaw juleeg suba li tulloohi samsi ba keroog jant yi fenk kuriha sib nañu naflun ees naafi la kon ginnaaw juleeg suba ba jant fenk ba dox ñetti mètre kenn dutul naafi dañ koy tere laa xaddaa ul man sii terewuñu nag ku yoroon bari juley farata di ko fay ci diggante boobu mën na ko kooka moom sañ na koo def wabadu asrin ginaaw ginnaaw tàkkusaan li salaatil maqribi ba keroog ñuy julli timis dañuy tere ku fi naafi la dañ koo sib wabadu fajirin ginnaaw julek fajar digganteem ak julli suba minit la dañoo sib ku naafi la ci diggante booba laakin waaye nag saal di ki amoon dogab jaamu yàlla bu mu sason bu mu sason boppam façon ci xolam ne diggante boobu daal dama fiy naafilaal sunu borom juróom benni rakk mbaa ñeent mbaa ñaar kooku te daan ko def ba bis nag ah ngëmment nelaw yu bari tax talu koo def mu ne kooku mooy saal wirde jaamab yàlla boobu nag sason boppam ak jaamu yàlla te nelaw taxoon mu tarde koo def yuraa gisees na jawwaa suhoo ees daganal ko foofee nag ca diggante booba mu naafila fa mooy diggante julleeg fajar ak julek suba mu def fa naafila yooyee mu sosoon boppam lowoo ci jëmam dong nag gisaa xala ndax da ko notoon ay nay nihi ay gëtam alkara ngëmmen la kon daa gëmmentu woon ba nelaw ba tax mënuta def loolee mu sasoon boppam kooku bu yeewoo may nañ ko mu def loola foofa muy naafila yooyee kurut kooku nag dañ ko sip dañoo sip mu naafila ca diggante boobu wa naflu nañ ca ñu sip naafila in jalasa bu demee ba toog fawxal min bari ca kaw min barba imaamu jumxatin imaam jawar a jiite juma bu ñëwee ba toog ci min barba dañoo tere ku naafila waaye nag waaye nag korxoon sip ga ñu sip naafila ca ba imaam ba toogee ca kaw minbar ba duri foofi lañu xame ni foofa dong nag lañ sibe naafila faqat dong ca jumaa ja kon boo ñëwee avant booba mën ngay naafila ba imaam ñëw bu toogee ca minbar ba nag dañuy tere nag ku naafilati na ñëpp toog déglu ko ndax déglu ga ñuy déglu imaam muy wax toog di def xutba ba mook naa fi la ñoo yem ci yool yaa ngi jàng téereb Sëriñ ba bi ñuy wooye al jawharu nafis wurusu wu sell wa di la jàngal lëgg-lëggi fiq ci lëgg-lëggi diine nañ ko war a xamee xàmmee ko na jëfe ko na te deesu ca juum wasalaamualeykum